chose man damaa ne carrément damaa mal placé man damaa mal placé parce que tey employé bu la ko joxee employé yi ay doomu jàmbur lañ tey ay doomu jàmbur boo leen taxawee pour weer leen fexeel yow ba li sa deret nga weeraale leen parce que yàlla bëggul làq doom door doom ñi sa deret nañ leen na nang leen weeraale waaye na nga weeraale say employé boo leen weer na nga weeraale dafa ñaaw dafa ñaaw léegi nag xamal naa la ko à partir de maintenant dàq nit mu génn ci internet bi duma ko maye samay preuve laa yor ku ma dàq nga génn ci internet bi di justifier wala ngay wax ma tegal la lépp un ba Z ba sénégalais xam li nga nekkee woon ci place bi yow koo xam ni bañalu la dara ah doo doo doo doo doo lekk doo du lekk bàyyi leen ah, añ reer lépp lu leen fi fekk da ngeen koy lekk yaa ngi dégg bu événement jotee li sama askan wi asan yéene ma yëkkati ko jox ko waaye boo ku ku fi décembre fekk fi décembre fekk ku fi décembre fekk te bu ñuy joxee bu ñuy joxee trophée joxuñu la trophée xamal ni liggéeyoo fi lu baax bu décembre jotee xale yi fi liggéey lu baax dama leen a joxal dama leen a jox trophée may leen xaalis ba ñu xam ni carrément lu dul jub ci àddina juba ko gën ñi fi liggéey nag laa la wax képp koo xam ne joxo seen ñëw nga ñëw na sa kër indiw fa trophée indiw fa dara na laaj ko loo def place Maam Ndiaye li ma wax barki dem fii nit mën na fee liggéey ba gaañu